ñu ne dañuy avancé ndax Macky Sall dañ koy génnee ci palais bi ñen ñi neen duñu saga Macky Sall man maa ne Macky Sall duul day piste pour ñi nga xamanté te nañ duñu saga Macky Sall tank mu ngi tok ci alalu askan bi di leen toroxal say buñu ñu tamit toroxal ko té sax épi ku saga sa bay pour ragal nak sa dom ñoo saga la Macky Sall du mo fi saga won lay do ba mu ne si Macky te Laay Wade mu yegg fi mu yegg mu ne si Laay Wade de kon on va aller le jeter dans le palais légui nak c'est ton tour Macky Sall tu encaisses encaisse hein et encaisse bien parce que nous bu góor amulé fit ñew déloger la arrivé à un moment ñun ci ñi nañ tak suñu fit sol suñu sœur ñew déloger la ci palais bi ken yobul ko Macky Sall ak ñi nga xam te ne nee ñi ngi mel seen biir dañuy daw chaque cinq minutes il sort maintenant chaque 2 minutes je sors dégg ngeen

Bala muy dem bay infiltré. infiltré Je sa oui je suis infiltré ma so len gis infiltré suis infiltré. taxaw infiltré la mais infiltré. mu ne suis ngi ak mais ko doon waxtaan ak ne bul ponkal bu day ni yow am infiltré. Je suis infiltré. ndax war nga saga, waro waro saga ne ba mu vous venez donner des leçons de morale à qui chaque 5 minutes là y dégg des du du Macky Sall du maamu Macky Sall du Farba Ngom du kenn bokk fay ma connexion Macky Sall n'est même pas capable de scolariser des enfants à 10 euros au Sénégal Mon mooy réglementé, réglementer euh, réseaux sociaux yi Macky Sall qui laisse 1,5 million d'enfants dans la rue il se soucie même pas des sorts de ces enfants là Mon mooy a des réseaux sociaux yi chaque 5 minutes maintenant je sors Tant que Macky Sall nous fait chier, maintenant, chaque 5 minutes, je sors et je le fais chier. loolu moo nekk wax bi te nag xamal Macky Sall yeewee askan baa ngi ñëw dégg yow rek Macky Sall boo doon góor nga def homme à homme kese homme à homme ñu dugal la ci néeg yàq président Ousmane Sonko doo yuuxu homme à homme laa wax boo doon def homme à homme kese ñu dugal la ci néeg yow ak Barthélémy Dias doo yuuxu doo doo fa génn vivant yow sans garde du corps sans garde du corps Macky Sall homme à homme qu'est-ce tax ngay tamou ka ngay andal xool ka ngay beurel ak koo dul bëreel y'en périmé yen yen yen waa APR Idrissa Seck sen masse bobu yéen périmé. légui nak Pape Djibril Fall comme da ngeen yónni waa Idrissa Seck parce que man xamna sen plan Pape Idrissa euh, Pape Pape euh, Djibril Fall roule pour vous parce que parce que euh, TFM mënul fabriquer lu bëgg population sénégalaise bu ñuy président Ousmane Sonko ca TFM bala Youssou Ndour moo en 2019 ci élection yi ne fi dañ koy Ndour 2019 je l'ai dans ma tête TFM képp faire? ñu defar amul kenn kuy TFM di TFM TFM te mu am petit patriotisme dans ses amul man TFM je encore pire jigéen ya fay nekk yëpp boo leen di wax ci bàyyi leen cagatu bàyyi leen cagatu ñoom du ñu bàyyi cagatu ña ñooy def promotion yi ku bëgg a monter benn échelon da ngay jaay sa taat deuxième échelon nga jaay sa taat troisième échelon nga jaay sa taat ca TFM bala xewee yéen TFM yéen fa am journaliste boo xamante ne am jëkkër am far ba far bi ëmbal ko ci biir sëy bi looloo tax sëy bi te mu ngi continuer di génne ci télévision TFM bi ça ne vous dérange la xewee ñëpp xam nañ journaliste bi te chaque jour mooy maquillé ñu nekk ca TFM ca maquilleuse ya la bokk na ne prip ñu génnee far bi ko ëmbal ba sëy ba tas yéen yéenay jàngalaate éthique et morale dans ces télévisions de naafek yooyu noonu koo nga xam te ne ci biir sëyam la nekk faram ëmbal ko ci biir sëy bi sax vendredi sax day solu ibaadu mooy tous les monstres tous les satans tous les démons qui sont dans TFM hein, ah, eux tous tous les vendredis ils se transforment en ange TFM bala xewee dégg ngeen moo tax yéen seeni seeni imaam kenn wóoluwu leen seeni dañ dañuy yenn journaliste yi dañ leen fay jiiñ puus mu puub ca TFM bala xewe fa la ñu enceinte Zeyna ca TFM bala xewee xale bu tuuti à partir de onze ans ngeen commencé jóg Isaac di ko tëddee di ko tëddee di ko tëddee ba xale ba ëmb TFM bala xewe te Youssou Ndour biwu ci ñam de loolu yëpp ca TFM bala xewe léegi ngeen ñëw fabriquer ñu fi kenn ku ñuy wax Pape Djibril Fall Nous ne bi ne déedéet day dem ak boppam jibril Fall fan la ba créer petite coalition parce que vous avez du mal à gagner Thiès ngeen ni Pape comme ça bu comme maamam da doon def campagne nous diglu baayam ñu naan maamam da doon def campagne mu doon taxawaalu kër sa Seck lu mu mën ci alxuraan kër Idrissa Seck la ko jàngee léegi nag mu ñëw Idrissa sekk moo fi jëlee woon kaamin bi naan xawma lan def fi benn saar boo xam te ne amul fenn ci musulman yi moo formé Pape Djibril Fall dégg ngeen mu ñëw naan naysaan di jooy comme jigéen man ba nga jooyee ni jigéen rek ñun assemblée nationale bi dañ fa yóbbu ay góor yuy jooy dégg ngeen je peux dire dàmbooj mun na dem moom nekkul góor guy jooy gii mari saa naa nekkul góor guy président Ousmane Sonko mën dem ak teg ci bi yëpp kenn gisaguko mu toog fii di ay télévision bi ah pare gu ñu ah ñu former leen naan les parce que gis nañ nit ñaa le gars il est beau il est mignon il est grand Il ni déedéet war naa mën a dem nationale Il du fa dem dégg ngeen bu fa bëggee dem xanaa mu ñëw bokk ci te bu xasee ba dugg du dem dara parce que bés bu dof ba slogan tu tu tu tu vas donner des trucs à Macky Sall on te tape Lol, du yéen ak président Ousmane Sonko de déedéet yéen ak population sénégalaise les prochains traîtres qui vont transhumer on les tape Pas de Djibril Fall boo wóoloo sa bopp ñëwal bokk ci rang bi yeewi askan bi fait nga Pour Pour fekkente ne Sénégal moo la ñor parce que fii laay waat bi sax léegi ñëw na top ci ginnaaw président Ousmane Sonko fii ku Sénégal ñor da nga ñëw top ci ginnaaw président Ousmane Sonko léegi bu élection jotee buñ leen falee ba pare. ku ku gaaw a jooy kañ du mën dara ji xoolal jim yi sax jigéen ñi si boppam ba ñu nee Pape Djibril commencé na jooy sax nee nañ ku gaaw a jooy kañ buñ ko yóbbu assemblée. parce que foofu noonu il faut moom ñu mën a dem front parce que fa la monsieur Machette toogoon tey Machette foo ñu yóbbu fa ay góor dëgg yu dëgër. nga xam te ne Macky Sall day commencé trembler Macky Sall tiit na de <laughs> copain et copine Macky Sall tiit na Macky Sall mosuma gis ni mu tiitee nii waa réew mi mosumaa gis ni ñu tiitee nii dañoo tiit dañoo tiit dañoo tiit dañoo tiit dañoo te suba journée bi may def mooy Pape Djibril Fall sa 18 laa ñëw dugg ba ca caajaay fa nga manqué woon fa sa maam doon defee campagne ak doomu Idrissa Seck ba ngay àndal ngeen di def seeni showbiz àndandoo ak kër yu Idrissa Seck sax boo moytu naa dem compté ñaata yoon nga fa dem añee reeree fa ndékki fa ah, ak ña la fa giseen ñi nekk ca koñ ba te amee foto bi ngay ànd doomu doomu Idrissa Seck bi dañ ko ñëw teg ci table bi doomu Idrissa Seck taxaw na nee na moom télévision Sénégal elle le regarde même pas ñu defal leen ay entreprise yu baax léegi yow ñu nga war a nekk benn moom préfabriqué ah sur mesure, comme tu parles dans la télévision, parce que dans une télévision, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui contredit. On t'a choisi, formaté, ils te disent oui, tu dois dire ça et ça et ça et ça. Télévision Bolloré. Nous formaté la banga xamantene nit yi commencé nañuy mine say parole. Nga da nga député. Et que tu veux aller tout seul. D'accord, vas-y tout seul. Tu vas te péter la gueule. Et si tu viens dans Yéwi, d'accord, tu suis derrière le président derrière tout le monde boko naré sorti li lu Macky Sall wala nga nar sorti sotti Youssou Ndour on te nok Youssou Ndour mo fi créé won fekkee ma ci bolé ken ba légui déggagoo golé né fekkee ma ji moo de dee xam luma ma jaaxal mos ngeen dégg fekkee ma ci bolé am député man dé gisaguma ko ñu ngi wax assemblée nationale Youssou Ndour da jógul les député déedéet mom ba mu commencé di riitil Macky Sall chaque élection mu organiser ben concert pour riitil Macky Sall formater les plus cons et le ramener pour Macky Sall mom loolu rek doyna ci amatul ben ambition amatul ben vision Yo ya ne woon fekkee ma ci bolé ñi wax législatif ñu wara a ay nit ci assemblée nationale pour ñu toogal fa askan bi Youssou Ndour ubbil sa gemmeñ gi fété la ci bolé sa parti ngi existé ba légui ou bien tu l'as vendu à combien à Macky Sall ou bien tu l'as échangé à des concerts Youssou Ndour fekkee ma ci bolé fekkee ma ci bolé kay

mom moy andax Idriss doomu Idriss Seck yi gis ngeen auto yi dawal bokku nañ ci Harley Davidson ah diko promenade bi dem internet bi photo millions million Seck tu traînes avec ce petit là tu lui as jamais dit que dis à ton père d'arrêter de voler non non as déjà voté vous tu bouffes tous les jours avec cet argent volé ngeen di jël ay millions di ko arrosé ci ay soirée ngeen di ànd ak doomu Macky bi ah et maintenant vous venez nous faire chier comme quoi tu veux être député député de qui député de de du fils de Idrissa Seck du fils de Macky Sall ou député de Idrissa Seck député kan nga bëgg a nekk Papa Djibril Fall parce que bu fekkee ne yeewi askan bi rek y a des places qui sont disponibles ndax tojoo fenn mun nga topp ci ginnaaw. la ngay def la ñom dam bo ci def te nangu nañ top ci ginaaw président Ousmane Sonko la ngay def la ñoom Clédor Sène di def te ñu nangu nañu top ci ginaaw président Ousmane Sonko léegi yow lan mo la téré top ci ginaaw yee bi yow yaay kan tu ki photo lan nga fa mëna def lo xam tane ñeneen ñi mënuñu ko def ba nga naan da ngay dem yow kese da ngay dem Singleton bolen dof dof loo ba ngeen nan da ngeen di xol le gars parce qu'il est un peu mignon il est jeune il va la vous allez l'amener à l'Assemblée nationale bu ko deme yekali ji Macky Sall bu kenn ñëw di wax ndax bu boba kenn du mëna tap tàpp mais bu xasse ba dugg bi réewi askan bi bu ko naré dem yekali Macky Sall dañuy tap taatam opération tàpp taatu transhumant da ngay gis ñëpp bu ñuy bu ñuy waaj duggati euh, yeewi askan bi ils vont réfléchir mille fois balaa ñuy dugg ngeen war ko généraliser fépp fépp fépp fépp fépp da ngay dugg dinañ la jox mais doo génn mais af il l'a rien fait à part bouffer l'argent de l'argent de du l'argent du Sénégal avec le fils de Idrissa Seck da ngeen koy dem ngeen google ko caajaay la dëkk maa dem xool caajaay caajaay ci Thiès la bokk Idrissa Seck comme mënatul gagné Thiès ñu ne xaay leen ñu xool petit village bi comme jaay jaay kii baa maamam mu ngi fa doon def politique dem leen ngeen déggu baayam man maa déglu baayam mu ne maamu Papa Djibril Fall da doon def politique fa ca caajaay ba léegi bu la nee maamu Papa Djibril Fall da doon def maamu Papa Djibril Fall da daan def politique fële ca caajaay ba d'ailleurs sax moom lañ ko tuddee moo tax ñu koy woowee Papa Djibril maa ko déglu baayam moo ko wax maamam lañ ko tuddee maamam bañ ko tuddee turandoowam Papa Djibril Fall da doon def politique fële ca caajaay ba

recrute recrute recrute ba nga xamoon ne Macky ni mu jaaxlee instant bi man maa ko enquête dégg naa nag ca Akhenaton Camélia rek lay tux man dama fa euh, kii euh, Marlboro Light rek lay tux xoma genre yooyu noonu cigarette yooyu noonu cigarette yu yàgg yooyu daal lay tux dégg naa moom Macky Sall ndax instant bi dafa jaaxle léegi ku mën a jël kura Macky def ko député ngeen xam ne Macky Sall jaaxle na Macky Sall bu demee ba jël kura Macky nekk mu représenté wu APR nekk député nga xam ne ne y a problème dans APR nga gis euh, Ibou Ngom bi nga xamante ni sax fait des années laay ful. ubbi na Ibou Ngom dama foogoon ne dee na sax Ibou Ngom gën a ñàkk jom kaa dañu ñàkk jom fii la ko polisu Macky Sall bi ci élection 2019 yi tiire woon tànkam tiire ko bal Ibou Ngom yow fii la polisu Macky Sall bi tiire la bal sa biir tànk ba nga ba nga lafañ pendant des mois. yow Ibou Ngom yaa mën a jóg naan danga nga bokk ci APR wala nga foog ni ñun ñu fekkee woon 2019 dañoo dee déedéet. Ibou Ngom ñun ñu de yow ñi tiire woon sa tànk bi tey ñoom nga toog ci télévision bi naan waa opposition bi ne valent pas le coup mais nit moo ñàkk jom man yéen waa réew mi gis naa ñu ñàkk jom ba tàyyi mais ñu mel ni waa réew mi non j'en ai vu dinaa dem nag Ibou Ngom sa vidéo yooyu nga xam te ne bañ la tiire woon bal ca ca Thiès police su Macky Sall dinaa ko génne teg la ko fi nga la fañ pendant des mois ma foogoon ne sa cerveau bi na ànd ndox la fañ boobu sax ma foogoon ne niite nga yow ibu Ngom nga joge won fa nga dekk ñew ba Bercy pap Diouf wala demee xool bépp Bercy pap Diouf ba ñi manifester ibu Ngom nga fa won lé yow ibu Ngom ya mën a tok tay man je comprends rien du tout man je commence à être folle qu'au fait ma ibu Ngom mo meuna a ci karamu sénégalais yëpp mu né mak sal ku bax la parti au pouvoir ku bax la yeen makki da leen wara liggéey c'est pas vrai ibu Ngom makki da la wara liggéey ma ngi dogu gëm ne Macky Sall wona am sëriñ parce que kula mëna tirer bal nga tok ay mois handicapé ba foko nañ di nga ñak sa tank nga jog nga ne ci ko ngay dem milité yi yow ñepp ko dem ànd ak Macky Sall yow ibu Ngom ba mu dess yow. ba ngay ñew di est-ce que li yow li la Macky Sall def mo gëna bon sax viol yow li Macky Sall def mo gëna kon bon te dex jigéen yow dañu tirer sa tank tuti nga dé yang tok diko di tay xeyna amana bu doon Macky Sall rek do tok fi di netandi dara dara deewon nga yagna na nga Sénégal spécialement pour manifester <laughs> non sénégalais je t'assure on a le peuple le plus bizarre au monde en fait ñun ñu am population bi gën bizarre li motax tax colonisé bi coloniser won suñu mami ba paré nok def ñu esclavage ba paré ñëwaat encore bëgg jëlat suñu ressources yi ah euh, euh, devant nous et qu'on ne fait rien l'exemple de Ibou mais comme deewaguma Macky Sall reyaguma parce que dégg naa mu ngi wër suñu bakkan yi dinaa dem dugg fii la Macky Sall tiire woon tànk xëy ni ñu bëri dañ ko fàtte dinaa génnee vidéo bi ak fi ngay saaga président Ousmane Sonko du président Ousmane Sonko moo la tiire woon sa tànk di Macky Sall mi tiire woon sa tànk tey moom nga dem toog di di défendre ah gisuma xaalis bu ko jar au ci ci àdduna gisuma xaalis bu ko jar moo tax ma ne leen politicien et politicienne sa xaj rek ngay jàpp dóor ko ba mu bëgg a dee bu ñëwaat la def kalaan moo nekk race bi man dama leen naan si boo fait politicien et politicienne ba nga naan waa nit yi dañoo bëgg a nekk député nit yi xam nga ñu bëgg a nekk député Ibou Ngom pour ñu mën a récupérer ce qui nous appartient tout ce que Idrissa Seck nous a volé loo tax ñu bëgg a nekk député te Ibou Ngom man maay ñëw génne la kër yi nga xam te ne moom la sa Seck jënd fii ñaari appartement la numéro de l' appartement et tout pour que bépp sénégalais bu bëgg a xam fan la ma ne leen numéro kër gaa ngi nii dem leen taxaw ci buntu bi nga def selfie te dama amagul sax seen temps su ma amee seen temps ba ci buntu kër Idrissa Seck bi laay dem def selfie avec le numéro de la rue def ko copier coller ak dossier bi tubaab yi defal fii Idrissa Seck appartement bi mu saisir teg ko ci internet bi réewoo leen de ay preuve lañ assemblée nationale mam bu fa Si vous dem dossier bu ngande dossier bu le protocole de Amsberg buñ ko téggé ci table bi prison à vie lay am même étant un fou dem ne bi am kuy sida ñu ñëw di ko ñuy tester ñuy dé ñuy tester ñuy dé ñuy tester ñuy dé ñoo ñëpp ay jusqu'à présent protocole de Anseberg mu ngi ci internet bi ñu ibbi ko mooy yéen waa réew li ngeen def mu ngi ne weñ tege ci internet bi Idrissa Seck li mu rey ci ay nit trois cent OMS tegoon ci table bi pour sida bi kon doomam yi mën nañu toog di dox ci ay Ferrari di yugoon di ndax ci ci deretu nit yi

gaawantu leen da ngeen di def protocole de Habsburg Idrissa Seck da ngeen gis liste bi yëpp je l'ai partagé j'ai fait des vidéos et des vidéos et des vidéos là-dessus moo tax assemblée nationale bi ñaan leen yàlla rek bu fa maam dem ndax bés moo fa demee Dossier yi bëri na <laughs> dossiers yi bëri na de y a des dossiers connus et des dossiers inconnus Idrissa Seck li mu rey ci ay nit moo ëpp téeméeri yoon dañuy jiiñ Macky Sall rey na ba rey baayu jàmbur Touba Touba bi muy dem di lambar lambar yi ba ne dafa tuub nekk murit moo ay tuub nekk murit ndax dafa rey baayu jàmbur bàyyi jàmbur boobu noonu jàmbur bi dafa génn ci élection yi ne bu kenn votel Idrissa Seck ndax moo rey baayam ba léegi amul kenn ku taxaw ne président Ousmane Sonko moo rey papam de mais boo leen demee Touba.

Parce que vous pensez que les gens oublient les crimes. Crimes, même à durée indéterminée, on peut le remettre sur la table tant qu'il y a mort d'homme. Idrissa que que mu les yëpp ay mbokkam yi sëram chaque année ñuy changer auto, wala ñuy def ay oto avec les couleurs des grands boubous tout ça on est au courant on est au courant Les dañuy qui bëri na de Et Ngom cousine Idrissa Seck bi nekk fii Compiègne nga xam te ni Idrissa Seck dafa jënd kër Compiègne dem def ko au nom de sa cousine cousine ba gaañu mu ñëw di réclamer kër gi fekk communauté de biens la yenn la daal de mënu koo récupérer dégg ngeen Pour récupérer, il fait semblant d'aimer les enfants de la défunte cousine. Il a pris les enfants de la défunte cousine sous ses ailes pour que les enfants ñu majoré mu mun leen a nax récupérer waat xaalis moo tax même coudé, dee sax doo leen ko may ku da ngeen di topp ba ci pour récupérer xaalis ba fa nekk yéen ci waa réew mi la xewee maintenant vous pouvez continuer à parler ñun bu leen neexee ngeen ne suñu bàyyi lu ñu def Sénégal mais suñu bàyyi sàccuñu Sénégal as tuut lu ñu am def ko seen njaboot bu ñëpp defoon noonu te bañ a sàcc Sénégal Sénégal day dem kanam xam ni ñuy poser question da ngeen naan Sonko lu mu def lu président Ousmane Sonko def Sénégal man je vous re je vous pose la question qu'il faut poser li Idrissa Seck sàcc Sénégal loolu mooy wax bi li mu sàcc Sénégal mu teg ko ci table bi tay buñ doon trier voleur doit être président ou ne doit pas être président yéen do len ci bokk yéen sànni nañ len yàgg na. xam nga Macky Sall bi muy jël pouvoir bi il parlait de douze milliards bu mu am huit milliards bu mu am patrimoine huit milliards pardon mais Idrissa Seck à cette période là il avait combien de patrimoine ndax boobu fekkone mo amone ay kërëm fi hein fekkone na mu doon def njuuj njaajam di dem di ñëw.

Vous ñi nga xam tane ne bañ leen falee ba paré la leen bi jaay ay diplôme pour ngeen mën ressembler à quelque chose vous allez venir nous parler de d'homme d'état Il disait est homme d'état où s'il était un homme d'état valeureux il a jamais travaillé dans sa vie à part voler l'état sénégalais il a jamais travaillé Idrissa Seck pour amone valeur Tuba, bi dañ koy récupérer boo gisé Tuba, bi duñu récupérer kenn ci ñu ñu ci mbalit parce que xam nañ ni nous on vote que

ngeen foog ne àdduna yàgg yàgg yàgg ba madame Macron invité Macky Sall ne ko kaay ñu fanaan ci benn néeg déedéet day rëkk day xoolaat encore bijoux yi parce que c'est des kleptomanes li xew Afrique yëpp xam nañ ko sauf que dañuy fermer les yeux parce qu'il y a leur intérêt là-bas mais eux tous ils savent que c'est une bande de valeur yoo xam te ne ils ne valent pas la peine foo leen teg boo leen tegoon ñaar dërëm nii sax seen bët yi day raf ay vrai sàcc lañ léegi nag ñun ñu yónni ay sàcc. sàcc yi dem ba miin suñu kanam yónni ku mel ni Ibi Ngom mu toog fii naan day saaga des gens nobles Ibi Ngom su la su la sa baay yaroon di nga mën a reconnaître ku am ku noble ak ku noble sa baay kleptomane di nga bu la baay yaroon doo ma sa saaga président Ousmane Sonko ñi rate ñi rek a koy saaga comme Pape Omar moom police italienne ñu ngi koy recherche fële ci drogue moo tax muy déverser colère am ci président Ousmane Sonko. yow tey sa baay yaru la sa baay bu la yaroon Ibou Ngom doo toog ñu tiire la sa tànk ki la tiire sa tànk ah xaw laa rey ngay delluwaat encore doon esclave yow mun nga sax delluwaat mun nañ la delluwaat ci tubaab bi nga doon esclave tubaab bi parce que tu ne vaux rien du tout man 2019 bi ngay bokk ci combat bi dama foogoon ne nit nga nekk te dof nga 2019 am na ñu bëri ñu doon àndal ci ñoom Idriss Seck man pour man nit la ñu wax bi ma doon wax Hélène Françoise man je pensais que je parlais avec des gens maintenant je me rends compte que j'ai cheminé pendant un an et demi avec des avec des cons Moi, haine envers les politiciens et politiciennes vous allez me comprendre parce que comment sa manifester Ibou Ngom ku sa je manifester Hélène François, jóge ba États-Unis dugg suñu manifestation suis que demee xool mooy photo wax je Comment ni je dem je éloge dama naan non non c'est pas vrai c'est pas vrai avec ça vous allez nous parler de dignité Yen rek yéenay yen yéenay saxat sen woccu Yen rek rek rek rek rek yéenay saxat ay woccu maintenant des esclaves comme vous des vauriens comme vous vous allez donner des leçons de morale à qui à personne bàyyi len yewi. dégg ngeen len yewi. parce que population c'est si ñom ñoo gëm yewi dégg ngeen bàyyi président Ousmane Sonko parce que population c'est pas pour ñoo gëm ngeen bàyyi iñaan nak c'est pas de sa faute s'il est beau il est grand et il est intelligent yalla moy sa nit dé bu Idriss Seck gatté c'est pas la faute du président Ousmane Sonko bu ñoulé c'est pas la faute du président Ousmane Sonko bu ñaawé loolu yëpp téggu ko bopam mais bu ci yokkee tamit soxna bi maa lay nuyu bu baax baax nek sacc man Idi Seck que ne en 2022 les bàyyi politiques politique léegi ñu dugg ci 2023 bi kañ lay bàyyi xanaa jo décembre lay bàyyi Idrissa Seck on te demande hein? yaa waxoon 2022 yaa ne woon da ngay bàyyi da ngay bàyyi politique carrément maintenant on parle plus hein déedéet yow Idrissa Seck léegi wird yoy non, nga non, def fii neen day wird ku wax ci moom da lay wird nga dee léegi nekatul yenn yenn ñuy wérdu ñu dee ñun ñoo leen di wérdu ngeen dee parce que ñun ñoo sonn ci seen race yenn politiciens et politiciens assemblée nationale bi dinañ xool ka fay dugg man léegi damay contrôler aller ak sorti parce que dama àndoon ak ay pit politique comme Hélène Françoise ils m'ont ils ils m'ont endormi pendant un an may toog seen ginnaaw rek naan yes yes vous avez raison léegi kiy dugg dañ koy xool dégg ngeen. motax pap jibril Djibril Fall bu mënulee dugg ci biir Yewwi mun ngeen ko récupérer ndax xamna ndo am dara yoru kenn may wax mu nan dafa ubi ben panel fans club affaire du fans club pap Pape jibril Fall du fans club fiñ ñu ni nekatul fans club dégg mun nga def tête de mort yi ndax té paré na ci live bi may xaaraat tamit ben espèce djé buy génn nan ah ñi seen bi dafa daw sama bir bu dawé ma daw ko sa kaw. damay génn quand je veux et comme je veux c'est pas toi qui paye ma ma facture qui leen fi facture Vous faites qu'un ne coup d'état au Dior Diagne dafa échoué ngeen bëgg déverser cette colère sur les gens qui tiennent parce que nous on va tenir hein. jusqu'au bout on va tenir